maintenant c'est au tour de l'animateur phare de rendez-vous qui se passe foofe ca Sen TV moom nag moom mujj def démission dal di génn foofe ca euh, groupe des média alors bu euh, kii Jimbori mhm. question bi ma lay laaj moom mooy mbaadu Bougane euh, télém bi nattu da ko ci bëgg a dal ñii di wax naan ba léegi nguur moo nekk ci ginnaaw faxastal bi am ñuy wax naan hmm, Bougane télém bi moo doxatul na moroon dox may répété waat sama question bu ma la ma la laajoon man la baadu waa ji dafa arrogant moo waral ba ay employé yu bëri di déposer seen ay lettre de démission mhm. pour yow njàngat bu pertinent bi may soxla moom mooy lan moo waral démission yi nga xam ni bëri na loolu fu fekk ca des médias bu doon benn nit moo génn ñu ne waaw mais te ñiy génn ay ndaanaan lañ ay ponkal yoo xam ne nekkoon nañ fu fekk ca des médias lan mooy problème bu des médias Jimbori yow da ngay jommalaate yow fii nga newoon ñëwal fii nga nekkoon déggu fii nga nekk waaw mais damay liggéey ñu may recruter rek <laughs> man damay liggéey ñu may non mais dama laaj benn affaire quoi <laughs> man damay liggéey ñu may woo rek ah waaw ñoom tamit dañuy woote rek <laughs> ah léegi ma wax la ma wax la benn affaire xam nga télé télé xam nga keroog da wax fii ma ne la bugaan bëri na ñu fay ñëw di liggéey waaw indiwu leen fa ah fi bugaan di nekk ak fi ñuy nekk du sax benn bugaan bugaan ma nga ca wetu cité kër góor gi ca euh, kii boobu bi rond bi fële biroom nekk xoola tal na leneen lu dul ñëw ci tele bi di wax ak kenn déggoo ma de ma ne la néew na ku fa ñëw nekk fa di liggéey te buggaan indil la fa c'est nee na day jékki-jékki seen gaay ci tele bi léegi boo demee ba am buzz nag booy dem xam nga tey euh, boo doon dem nii bu bu ma doon dem nii ma jékki-jékki rek ne damay quitter Feeling Dakar quoi. ma tànn ko xam ne mosul génn ci télé bi. yaa ngi dégg mm-hmm. ni am lu ma naqari yaa ngi dégg tànn ngoone gënul. nit ñi ñooy tànn loolu ñoo tàmm loolu il faut ñu kole ko ku xam ne day amaale buzz pour ñu mën a dem seen yoon jaayu bajar mm. yaa ngi dégg mais dama lay wax moom moo wadd moom moo wadd jàmbaar la de mm. mais xam nga man lan laa lay wax waxoon naa la fii keroog ne la est xam nga kan mooy kàngamu télé kan la mooy ki nga xam ne dafa jóge ci télé nekk kàngam ñëw ci tele mais ku xam ne télé bee la def kàngam est-ce que kàngamu télé bi nga. mais moo kàngam waa xaara xaara moo ni mu jàmbaar. waaw seen TV wax mu jàmbaar la seen TV jàmbaar la mais dama lay wax ne la seen TV ñooñu nga fi lim seen TV moo leen def li ñu doon xam nga Ahmed ay dara Aïdara est-ce que seen TV moo ko def li mu doon. Hmm. defu ko ko. Hmm. feneen la jóge dafa jóge wal Walfadjri dem TFM ñëw seen TV. dëgg la wala du dëgg Pape Cheikh noonu am na wala amul du dëgg mais ñii seen TV moo leen def lu ñu doon ba pare ñële bi ñu demee ba léegi programme seen TV xoola journal yi ñuy gën a seetaan seen TV la ak wal fajiri est-ce que xam nga loolu mais jugee bi ñu fay jugee yàq dara ci programme bi non xam nga tey moo wax la benn affaire télé nag ak ba télé daj information yi ak journal yi ñoo ëmb télé mhm. mais leneen lu dul loolu mën nañ la remplacer waxal rek leneen lu dul journaliste bi nga xam ne mooy joxe information yi matinal bi affaire yooyu kenn xamut. Mhm. bu dul journal bi daal. daanaar képp koo gis mu nekk ci télé remplacer la yomb na. mais vrai problème bi nga foog fan la war a. non vrai problème. bugaan moo dul fay. non ah. wala wala wala bugaan mooy am problème mu emploi yi je sais pas quoi problème bi fa la jógee. non ba ñoom ñuy démissionné ama yow bi ngay wax ba léegi. mu mosoo dégg ku ne la si Bougane moo moom laa amal problème moo ma fi dàq. ñoom bu ñu génnee dañuy rafetal dañ naan amal waaw déedéet Bougane moo ma fi dàq ba léegi waxagoo ko fi est-ce xam nga loolu. waaw lettre démission yow yaa koy dugalal sa bopp mais Bougane gisagoo fa kenn ko xam ni Bougane moo ñëw ne ko génnal télé bi. mais Bougane waroon na mën a rejeter démission yi. non déedéet xam nga buggaan kan la ku moom nit la koo xam ne nii yow da lay jël ñii ki lay jël rakam bi moo lay jël. Mhm. ngi dégg naka la tuddati. xaw ma naka. waaye xaara xaara nan lañ koy wax kele door moo tax may fàtte turam bi. kooku moo lay jël. moo xam nga li ci des yeneen yi moom yi moo res tele bi. gisoo bañ nga ko ba booy waxanteeg moom dara sax lu ci ëpp ñii kii affaire kii bi danaa la waxal ak moom yi mais kooku kan kon lan la joteeg yow ba di la jël ak di la dax am na wala amul. bu bu télé bi baa du am problème ci lii. tele bi mënul am ci problème ci yii xoola tele bi. ñi fa mën a jóge mu am problème dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy réalisateurs yi ak techniciens yi. mais bu fa réalisateurs yi ak techniciens yi doo nekkee tele bi du tax. non non dama ne xanaa am loolu liy feeñ pourtant ñun ñii man maa ngi feeñ ngoonee di feeñ. waaw ñun ñii di feeñ ñoo ci gën a tuuti lu ñuy def. waaw ñi ci ginnaaw parce que tey ñi ci ginnaaw xoola ñi ñi nekk suñu ginnaaw moo ëpp ñun ñett. waaw am na wala amut. ñi partagé ñi nekk ci ginnaaw ak ñiy defar pour ñu gis ñoog mhm. ñi ñuy dagg boobu ba léegi di ngay ngay suñ kaw yaa ngi dégg est-ce que ñooñu nekkuñu mooy émission xoola tey mun nañoo indi kuy wax ni Jimbori indi kuy wax ni Ngone mais nga dem indi ko xam ne dafa mën émission bu Ngone ne Macky Sall mu indil ko Macky Sall ku mu wax mu indil ko potoom tap tap tap bu kiil mu bind bind bu gaaw ñooñu ñooy affaire bi est que te ñooñu xoola ñooñu ba léegi gisagoo ci kenn ko xam ne bougé na seen TV seen TV bëri na ñu fay ñëw ñu xam ne bi ñuy ñëw duma tudd tur de dañ doon saraxu sax pour ñu jël leen fa mais bu ñu demee tuuti nit naa noo diw yaa may daaneel nangam nangam génne tuuti xoola rek ñu génn aj lool la mais dama la wax ne la bugaan bi ngeen di wax kaa yi kaawu ñiy jóge seen TV ba léegi xam nga lan moo ma si jaaxal ñëwagoo fii ne bugaan moo dàq diw waxagoo ko de. ba pare ñoom ci boppam ku taxaw ne la bugaan fayuma amagu ci am na wala amut du dëgg dañuy ñaanalante ci jàmm ba pare am na ñu fa jógee ñoo xam ne ñoo leen di wax ni diw jóge na fi ba tey émission yi nga xam ne am na esponsor ñooñu ñu ngi ba tey ñu ngi fa di di di liggéey ak sponsor boobu. mais est-ce gëm nga nii parce que kële Mansour Diop ba léegi daf fay feeñ ak sponsor boobu noonu nekk seen TV. waaw mooy introduire sëriñ sëriñ bi di wax kon léegi lan la. waxal rek mais ba est-ce gëm nga nii ba léegi nii. Euh, Sen TV euh, am na ñu problème mu am audience ba ñu amoon parce que kàngam yi ak ndaanaan yi fa nekkoon yëpp démissionné audience ba dafa daw. non xam nga man jaay naar bu yàggee da da may sonnal. non no audience dafa daw kàngam kàngam parce que ndaanaan yi jóge jàmbaar ma wax la dara non audience na waaw xaar xaar ma wax la benn affaire. waaw Sen TV saa bu ñu xëyee émission am la Sénégal yëpp di seetaan ban émission la. mooy émission matinal bi. yow kon yëgoo bi xaaral revue de presse bi Ahmed yaa ngi dégg kii naka euh, kii dëkk Tëngéej. nu mu tudd waaw ma nan Njaay waaw. yow yaa war a gën a xam seen yow mi xam naa ko ji dëkk Tëngéej nu mu tudd ku njool ki. xam naa tur magu bi bi. waaw yaa ngi dégg kooku moo fay nekk ak beneen gel bi xaw ma naka euh, naka <laughs> non yow tamit. yow da laaj ay nit xamoo ñooñu sax waxal rek non da ngay di xam. kii la nu mu tudd. <laughs> waaye kii waaye kii président Salma. xaw ma muy jaawale wal faj rek seen <laughs> kii bi kii moom jot na de. jël bi taalibe Baay Ñas bi taalibe Baay Ñas bi ñooñu ñoo fay nekk chroniqueur yi kii moo fay nekk naka la tuddati wa beneen waa ji eh? yi ah? na naka waaw waxal waay ah, waa xaara xaara xaara wallaahi audience bi wàcc wàcc na bu yàgg jëmboori xoola xoola ma wax la benn affaire momo momo mii ban émission la doon def rendez-vous rendez-vous mais rendez-vous rendez-vous émission faar la woon ci émission ci télé bi non bu baax la ci yow tey comme jóge na fa hmm. yaa ngi dégg day baax ci ñenn ñi pour waaw day baax émission bu am audience laa doon def laa la wax waaw da la émission yi kan kan moom moom émission yi moom waa Sen TV waaw mais mais moom jógee na fa te moo ko doon présenté émission waaw mais xanaa keneen mënu ko def moom mi xay na dafa gis feneen fu ko gënal Sen TV Sen TV tamit day teg keneen ku gën rek wax leen rek mais seen TV moom boo ko génnee ci tele yi gën a. ah yow seen TV daal sa télé la rek moo tax nga koy défendre. télé kan la yow sa télé la rek. yaa ko moom sama télé man ah, ah waaw. boobu léegi yaa ngi yaa mais yow mun mun ngaa yanu nit nit ku fa jogee nga ne day tax télé bi daanu te télé bi. mais nangu mais mais mais kan. non <laughs> Jimbori kii nee na nga bàyyi ma sonal nga ma ne. non dangaa yabaate <laughs> déet man kat moom mi xamul mooy laajte xamul ñi ñi ñi chronique xamul fa dara. Ah, léegi audience mais man audience bu daanu kii yëgu ko. Eh. parce que xamul ku fa nekk ku fa benn kii Walfadjri kii. Asma la tudd. Ah, la ko bindal Asma la tudd. Ah, xoolal waaye demal fële Asma la waaw yow mu yéen. xoolal ñi gën a aay jaajëf ay lépp amu mais Djibor yow nangu nga ni. boo forcé ni dara. kii bu fi jógee affaire bi du dem. mais Djibor man forcé wu ma la je force rien. internaute yi ñoo naan ma internaute seen TV il perd perte na bu baax a baax audience parce que kàngam yi fa jógee. yan kàngam la mais journaliste yu mag animateurs yu mag ñëpp démissionné woon. waaw waaw léegi dama la laaj léegi mooy programme seen TV. mënoo bi fa nekkoon moo fa nekk ba tey. te ñii démissionné am na wala am. waaw dañoo gis feneen fu leen gënal ñu dem. Mhm. bugaan tamit jël keneen xanaa yow daawoo seetaan wal fajiri. waaw Sidi Lamine xam nga lan la daan def day jël ñu aay ñi dàq leen bàyyi fa ñu mënul nee na ñu mënul bu leen dàqee kenn du leen jël. bu dàqee ñu mën ñi dañ leen di jël parce que booy seet produit yi nekk ci télé yëpp produit wu wal fajiri la. waaw dëgg la waxal rek dëgg la. yow tamit bugaan xoola mais waxtaanal ak sa copain rek nekk non non waaw waaw xaara xaara xaara bugaan du sama copain xaw ma ko kaay fii benn affaire ma wax benn affaire non dama lay wax ni ah, nga déglu voilà dama dama bëgg nga ne ma ah, ah diwkat dafa jóge seen TV mais bu jógee seen TV problème bii la fa am lii ak lii moo tax ñu jële ko mais yow doo wax loolu da nga naan diw dafa jóge est-ce que du bugaan moo lii yóbbu ko si buggaan direct mooy bugaan amul ak ñoom mais bugaan mooy nday mbili gi nag eh, jàmbaar ma wax la benn affaire ñi leen di fay ñi leen di fay du sax bugaan mhm. laaj leen waxal ki fa juumoon bay wax bugaan ba mu duggee direct lu ko bugaan wax ne ko ndax soldu sa soldu mus na manqué mu ne teg loolu la ko bugaan wax ne ko ndax weer wi mus naa dee sa soldu teguwul sa loxo. sa soldu day tegu sa loxo mais mais ku mel ni bugaan war na def noonu ci antenne. kan en plein direct nga dugg di. déedéet déedéet ndax say employé. booy wul de. ah ma wax la dara. est-ce que bu doon man ma dugg xoola. déedéet leen humilier de n'est-ce ngoone ah. boo toogee ma wax la kii télé indo lay seetaan déggul ma wax la xoola <laughs> ma wax la. xoola boo toogee ba mu neex la yow. nga toog naan tele bi. lu luy problème bi li nangam foo fi nga ko laajee borom dugg wax la tontu la li nga laaj. loolu laa gis. Euh, est ànd nga xalaat ak Jimbori ci li mu wax waa Sen TV. lu mu wax du ma du ma ci du ma ci d'accord parce que tamit munoo nekk ci télé chaque jour dañuy laaj lan mooy problème bi ah, ah, ay ponkal chaque jour di fa jógee ku mel ne Cheikh Sarr hmm. war faa jóge te Cheikh Sarr li nga jotee moom ñëpp xam nañ ko. te mu dem loolu ponkal. wa waaw ponkal la mais dafa marqué. te doo jóg fecc. non non mën naa ko fecc. la telem la telem la dama yaakaar ne la bu dee teg kaset moo tax. dama yaakaar ne moom actionnaire la ci xanaa ponkalum magum jëmm la. non non parce que mu ne am. xaar xaar non jibóor rek il faut mu arrêté lii. mënul rek mu défendre ko loolu duñ ko nangu. non dama lay wax rek. loolu man dama ci ñëpp la ñuy topp quoi bugaan bu ah. nekkul ci dëgg dañu ko nekkoo ci dëgg. bu nekkee ci dëgg ñu nekk ci dëgg yow xoole yow yow ba léegi. waaw ndax bugaan dañoo taxaw ne bugaan fayuma boo du mais. ñëw di wax nii rek mais li nga sa seedee ngi nii. di xool mais ay éléments buñ koy perte nii facilement ban élément. ñi fi nekk ñëpp. waaw xam naa bugaan bi mu defaree télé bi ñoom ñoo ubbi télé bi ñoom. mais daf lañ fa ñu ubbi woon waxoo leen de. mais daf lañ fa ay ay ay yëf yu am solo. ay yëf yu am solo bugaan tamit di jël xaalis bu bari di leen ko jox. yow Nesta yaa fi wax naan ngoox tayoo ko. ngoox ngooxaat yaa ko tey wax. non dama ni. ah waaw waa bii de. ah yow yaa na ñun ñii est-ce que ñoo njëkkoon a nekk Feeling Dakar ñoo waxal kañ nga fi ñëw waxal rek yàggul kay yàggul waaw foo jógee dégg nga kii nee na yow bugaan nga xenam nga moo tax garaan ñëpp xam nañ da gaay nag bugaan kan bugaan nga kan moo wax bugaan sama gaay bii mu ne ah. lan nee na bugaan gaay nam nga moo tax ko koy défendre mo yow eh, ñëwal ngóone bismillah ma ne koto boobu mi ngi wax mais télé la xam. xamul ci yi dara. parce que ba tey parce que tey jii. <laughs> waaw yow munoo nekk ci yor yor sa télévision chaque jour. waaw ay ponkal di fa jóge. Ah. man chaque jour waaw waaw. parce que xam nga lan ah, moo tax gis nga nit ñi bugaan ci boppam mais ay ponkal lañu. <laughs> Cheikh Sarr <laughs> marqué na empreinte am ci li nga xam ne moom la nekk muy animation. di teg muy dox. loolu ponkal lañ ci muy dox ak parole yu baax yu mu ci nekk. ak parole yu loolu maamu bugaan sax mun na ko. moo ne la ak parole yi ah, mu ciy teg Cheikh Sarr nekk na koo xam ne àdduna bi ñëpp ko bëgg réew mi ñëpp a ko ñu bëgg luñ mm-hmm. mel la ay Sofia Diatta yàgg nañ fa nekk fi buñ fay ñëw ay xale lañ te bugaan képp ku fay ñëw tey ci television am nga loo indi kenn indaal kenn ñëwul ci télévision boo ko laajee télé Sen TV nga xam leen boo ñëwee hmm. moo tax nga xam leen ma ah, <laughs> moo tax ma xam ne mais seen talent ah! moo leen fa yóbbu parce que indaale ñu ko ak tête vide imaginel tey bu ñu ñëwoon tey topp kaa ne dañuy liggéey ñëw Feeling Dakar mais Bamba Diop ak madame Diop amuñu amuñu jot ñëw naan dañuy jàngal mais dañuy ñëw am lu ñu xam nga ñëw prouver nga xam ne la yow mii mën nga dara ñu yokkal ne la yokkal wala wàññin mais mënoo jël benn inconnu amul dara ñëw indi ko bugaan am na lu mu leen defal waaye ñoom it am na lu ñu defal bugaan ndax Sofia ku ne gisoon na ko ci entre nous moom moo gis ngeen ko émission bi muy def rendez-vous nit ñi dañ koo bëgg di ko mm-hmm. seetaan mm-hmm. gis nga boo nekkee ay élément ngoy leen dangay ngay fexe ba da leen di jàpp nga téye leen ay ngat-ngat ak ay arrogant loolu yorul télé. Ah, yorul télévision ah, vraiment wax nga ne boo yoree ah, on dit que ay arrogant il est ma la wax ay arrogant. mais il yorul télé. yorul ay nit. ay gëdd parce gis nañ ko tey ci direct. waaw boo xam ne dafa dugg. humilier ko humilier humilier la humilier ñi nga xam ne ñoom ñu nekk ci plateau. ba ñooñu ba maîtrise ana maîtrise ak tolérance. waaw waaw parce que yow tey boo yoree sa télévision Youssou Ndour kenn mësu koo gis mu dugg ci direct kenn Youssou Ndour kenn mësu koo gis mu dugg ci plateau donte lu na waaye mën a wax war nga mën a am tolérance war nga mën a am maîtrise mhm. xaar sa employé ba mu wàcc ci nga xam ne ci plateau nga woo ko ci sa bureau ne ko tey d'accord ma li nga def tax man daf may arrivé arrivé la arrivé keneen ba ba pare ba ba woo la mm. ne la ngóone li nga defee ah, tey li nga waxee tey bëggeewu ma ko noonu mais nit ki def na ko fi ay ñaari nit parce que yow benn yaa ngi bëgg a yor réew mi mais ku mën ta yor télévision mënoo leen maîtriser mënoo yor nañ waxante dëgg Bougane yow mënoo yor télévision waaw amoo maîtrise ak tolérance ñaata nit ma laaj laaj laaj bu ndaw rek laaj koo xam ne télé nga yor ñëpp di démissionné bu eh, ak ak eh. la yow kii laa laaj dama lay laaj ak nit Sénégal gi nga xam ne mel na sëmb su tas ku ci mel ne sama genre gi nga xam ne ñoo gën a déréglé ay mankan kunkam kunkarangkang lañ Sénégal ku nekk sa feem sa façon yow amoo maîtrise pour lijjanti sa télévision tey kooku est-ce que tey ko joxee Sénégal dina ko doxal moom moo marqué na fa empreinte am Cheikh Sarr marqué na fa empreinte am jii ñun ay théâtre kat yu perte lañ benn benn théâtre kat bu perte la tey jii su ma neexoon tey est-ce que man bu ma toogoon fii su ma yemoon ci ba dinaa fi toog di chronique fi ma toog di fi di chronique mën naa yem ca théâtre ba tey nit ki doona yow nit lii ngay def rek ca yem ana mannequin mannequin yéen ñu ci théâtre bi ñuy théâtre nag non ci théâtre ba ña ngay théâtre ñuy joué léegi duñ théâtre kat waaw léegi moom laa wax léegi nag mu warul warul ma déglu ma wala xaaral ma wala xaaral yéen ñi ko yow waroo wax ci làmb waroo wax ci leneen nangam ngay wax en tant que ngay nekk porteur de voix waroo wax ay saytaane ngeen de fii ñun ñëppay wax ci lu fii <laughs> ñun ñëpp ñooy wax ci lu ñu neex du dëgg tey jii suñ fi neewee mm. politique dañ koy wax te maîtriser ñu ko nit ki da nga war a am maîtrise ak tolérance moo manqué li nga xam ne moom mooy Bougane Gueye te nit ki da ngay war a téye say say say élément bul am say élément yu gën a pertinente ci sa télévision ngay xool ñoo ñu di dem mais ñeneen ñiy ñëwaat

rëcc rek dañ mën dañ leeral na leen cër yow nga yor ay éléments yoo xam ne fu ñu génne ñun leen poymat tee yàqal si da nga leen téye Mansour Diop waaw ak Sofia macha allah élément bu pertinent Sofia Diatta du chômé Momo Wade du chômé léegi jëlaat leen ñu dem seen waaw ak Momo léegi nag boo amee xoolal Momo li muy def réew bi ñëpp bëgg ko te ku ne xam ne na papaam dafa marqué empreinte am ci ci ci boo amee nag ay élément élément yu pertinent bu baax ñooñu leen war a téye nga jàpp leen mais Bougane chaque jour avec avec ses ses ses chaque jour ñu ne animateur ba bàyyi na tey Bougane nga ci direct yi hmm. Bougane nga woote te nee na moom télévision ñu ñëw di ko du ko xam te Bougane nekkul koo xam ne dafa ubbi maison de presse dem toog comme ni Youssou Ndour def génn ci loxoom bàyyi koog ñeneen mais Bougane mi ngi ci terrain bi di liggéey jabaram mi ngi liggéey kon ñoom xam nañ li nekk ci biir kër gi mais nay faral di jàpp ay nitam ku laaj Sénégal bëgg a jot réew mi te amoo maîtrise amoo tolérance mënoo régler télé bu mel na seen TV ndax kooku mës nga mën ngaa régler Sénégal d'accord monsieur Bougane Gueye Dany j'ai une question à te poser alors Euh, Euh, di démissionner de fil à fil lan mooy sa problème ba ñii nekk ci sa télé di jóge ci sa télé euh, di dem ci yeneen télévision te nga xam ni ñii nga yor nii bu ñu bàyyee yeneen télé yi ñu ngi à côté te bëgg nañ yor say élément yow Bougane yow xam nga ni élément yi nga yor mm-hmm. yeneen télé yi ci wet gi bëgg nañ koo am alors question bi moom mooy Bougane yow yaa yaa yaa métti wala yaa yaa yaa yaa xaw a arrogant ah. wala yow yaa melul ni nga war a mel ba war ba tax sax say say say say say kii di démission démission moom mooy am naa fi lu ma naqari wala bëggatuma fee nekk damay démissionné te ku démissionné dem ci sa télé télé télé kii nu mu tudd adversaire yi xaw ma hmm, concurrent waaw c'est quoi le problème luy problème bi. ma xam nga yow li ngay wax nii li ngeen wax nii yëpp ba fin. non yow garaaw non xaar xaar dama lay wax xaara xaara xam nga yow waxee woo xam-xam xam nga xam-xam mooy lan yaa ngi dégg ma wax la benn affaire tey jii moom amee lu leen xaalis du dëgg amee lu leen dara dañoo jekki-jekki bëgg a bàyyi bàyyi. yaa ngi dégg bëgg a bàyyi bàyyi. léegi yéen lu te moom jëlu leen ñoom sax duñ ko gis am na ñu fay nekk ñoo xam ne duñ ko sax teg bët. mais buñ jëlee bugaan bëgg a jël ku bàyyi ci télé bi ñu teg ko si bugaan. Hmm. xam nga lan moo si bëgg a dugg. loolu la rek nga yëgale ma lay wax rek nga yëgale ma lay wax rek nga yëgale. affaire est-ce que yëg nga ni ñii yëpp bugaan mën a recruter xam nga loolu. moom moo waat Bougane ko woo jël ko. waaw ah. Sofia Diatta ba muy nekk Top FM. rajo ah. su ah. Bougane moo ko woo jël ko. waaw Mansour Diop noonu. waaw Bilal noonu. Cheikh saar noonu. ñoom ñëpp moo leen recruter. léegi bi leen Bougane wooyee léegi. exemple waaw xaara xaara. bi leen Bougane wooyee ba pare bi ñuy bàyyi du ñoo démission. waaw lu Bougane def lu mu def. ku bàyyi lu mu def waaw wax la benn affaire ma wax la benn affaire. waaw ku si nekk bi ngay doog a commencé. gis bu fekkee Bougane dafa am benn jikko gisoon nga mais yow danga nga toog ci tele bi jaayu ba jar yaa ngi dégg xam ne léegi boo demee di nga jar yaa ngi dégg moo tax nga wane bu ñuul kukk mais bi nga waaye jàmbaar am na yoo xam ne dama ba àgg ak yow ku nekk ci télé di nga jar benn am na ku nekk ci télé di yaa ngi nii toog fii di jar xaara ngóono yaa ngi nii toog fii di jar boo feeñ télé moom di nga jar comme par pas de visibilité wala yooyu noonu mais dem xaara xaara dem dem day rafet quoi ma wax la benn affaire xam nga buggaan li mu laale politique li mu laale politique sànq nee nga Youssou Ndour dafa def nii def naa li Bougane di def Youssou defu ko comprendre nga li mu la wax bokkuñu sax ay méthode Djibori Youssou est-ce que xam nga ni euh, Bougane bi xaara dem soo bëri yi nii xaara xaara bu la ko télé métier la kee télé du métier yaa ngi dégg loolu mooy affaire bi mais rek du dem de foog éléments yi ñuy joxe parce que bu doon Bougane kese du dem non luy problème bi laa bëgg a xam kenn weddiwul loolu mais yow ba léegi mënoo indi benn preuve buy wane ne Bougane lii moo tax gars yi di jóge bañ bañ koy jël di ko si natt di ci natt. réew lu tax du génn wax leen lu tax jóge fa. kan Bougane ni ñu ko xamee loo ko waxal mu génn wax la ma wax a génnul wax. mais kenn si ñoom taxawagul ne damaa yoreel de. yoreelu ci fukki dërëm non du ay émission du ay yoreel. ku nag bañ a doon leneen booy ñii dañoo dem gis. xam naa ku ëpp solde. Ah. ñu dem fa <laughs> xëy na lool kese la dañoo gis fu ëpp sol di ñu dem fa nañ la wax dëgg. waaw ah, baax na Jimbori yow daal sa wax nga naan ITV ITV golo gu jóg ñu jël la nga naan maam benn bëñ. waaw del ak moom bu dee la. élève bi bu deful ndànk ah, ah yàlla baax na yàlla yàlla sàmm. leen booy da ngay am waaw dem mooy mel ko booy loolu joteewul ak dara de seen malade yi fi nekk yëpp daan tëdd di bëgg a dee moo leen ko fajal. ci télé bi fàtte ngeen ko. cœur ouvert xaw ma cœur. waaw waaw ñaata nit. d' accord d' accord nañ kan moo musul seetaan loolu jooy. d' accord te léeg dañ daan ketal nit bugaan ne jaratul ket génne xaalisam joxe. daa joxe joxe Sénégal ba jeexal takk lii mooy payam. ok kii message lii kii message na ma ne ma jaañ naar. lii mooy payam ma laaj la rek. defal naa ngi bugaan mooy ko ko laal yéen ay tere dar kii nee na ma kii nee na ma jaañ naar bugaan day waaj a tëj télévision bi eh. looloo problème bi. moo tax muy daal wallaay amul. message la ko di déedéet déedéet kii day théâtre rek télé bi xoola télé bi ma wax la benn affaire télé bi du ma sa tëj yaa ngi am na ku fi taxawoon ne télé bi dañ ko tëj télé ban Mara Niass télé ban dinañ est-ce que lii du simal misaal bi Mara Niass toog na seen télé ñoom seen TV ne leen seen bërëb bi dañ koy tëj est-ce que lii du misaal bi xoola kaam wax dara waa waaw léegi ah ah ah waaw te waxoon na ñu bëri dañ démissionné. ñu bëri ba ci ba ci ah, Maara Maara ragal. Ah, mi Maara defoon na fi révélation waaw waaw waaw waaw ñëwee toog ci émission boobu Maara Niass Niass Koumba Abdallah mais def leen ndànk message dafa bëri def leen ndànk may lii ñëw danga may déglu Maara xam nga Maara Maara ba mu fi waxee def na fi révélation ci Momo Wade waaw xamal ne Momo Wade ne ko boo maytul sa sëy dina am problème te bi damaa gis nga jóge fi dem feneen waaw xam nga defoon waxoon na ko fi defoon na fi waaw waaw waaw léegi te gis nañ ko tey moom moom moom démissionné na xam nga kon Mara visionnaire la yéen lu mu wax rek nit ñi dañ dañ koy gis ci saa su nekk bugaan daal ama Mara moom genn wàllu jinne la saa fii ma wax la benn affaire ma wax affaire gis nga tey ku bëgg a avancé ku tey ji télé boo ci nekkee mun nga dem ak tele cinq ans six ans mais bu ñaan nga yàlla jóge fa dem beneen télé amaat beneen contrat bu raw foofu. Hmm. parce que souvent télé yi léeg-léeg bu ñu la fa jëlee contrat wu 10 millions du du ñu mënati ci yow vingt millions mais keneen ki lay gis kooku mooy mën ci yow lu ëpp. kooku bu la woowee tamit da ngay dem waxal rek. mais télé bi waaj tëj nag. télé ban di waaja a tëj. seen TV booy loolu bul ko indeegum parce que jotagul tëjagul. mais pour ma wax la benn affaire. Ah, buñ ko ëppul doole ñëw di jéem a tëj ay affaire am moom bugaan. Hmm. télé bi du mës a bugaan xoola télé bi télé bi ma wax la dara tele bi apporté ko dara mais dama lay wax ne la benn affaire ma wax la télé bi apporté lu dara ba pare tele bi ñaata nit la ci bugaan faj ñaata nit la ci jël muy liggéey bugaan télé bi bu tëjee bu tijjee apporté lul bugaan tous tous ba pare ña fay nekk jëriñu ñu bugaan dara man maa la ko wax ah, aa ñu ah, ngi liggéey waaw dama lay wax waaw waaw da ngay déglu waaw da ngay déglu ñu waxtaan dama ne bugaan tey bu tëjoon tele bi du ko tee dund am na wala amut. non waaw xam nañ mais waaw waaw déglu ma wax la nit la ko xam ne dafa bokk ci réew mi xam di créer ay emploi yaa ngi dégg comme ñëpp. bien sûr yaa ngi dégg kon bugaan gàcce ngalaama am na ñu ko mën te defuñu ko am na wala amut. Mhm. mais nit liggéey ci télé bàyyi taxul borom télé ba bon bi mais góor waxal rek. Euh, waxi maaraaña si baat day. waaj waaw toog na seen télé ñoom seen TV ne leen. seen télé bi day tëj ne leen seen télé bi day tëj. est-ce que bu ñuy yu bëri du misaal ma. Ah, yàlla bu mu ñëw nag seen TV moom yàlla bu mu Mara waxu la wax wax Mara ah. bi mu defee révélation bi fa toogee wax na loolu mais directement ak Momo daf ko ne carrément gis naa boo may maytul problème ak sa digganteeg sa soxna waxaat ne ko télé télé bii da ko di nga fi jógee dem feneen ba noppi ne télé bi day tëj te borom te borom télé bi na def très attention bu may te télé bi dina tëj hmm. loolu la Mara wax te ku ne xam na ne mooy bokk na ci visionnaire yi bokk na ci l'homme de bokk na ci missionnaire yi nga xam ne ne vision wam li ma koy wax chaque jour jéggi na mer rouge tooyal arabe yi lépp lu mu mës a wax ci àdduna dañ dañ koy gëm te bugaan bugaan bu toll nii dama yaakaar ne bugaan bugaan sa jàpp ñu ko sax mystique waaw waaw parce que munoo bàyyi say élément même bu ñu mënee ñëw ci yow ne dama lay bàyyi wala dara mais mën na nga def ngeen toog ngeen waxtaan laaj ko lan mooy problème bi tax nga bëgg a bàyyi am na ku ne ma ak travailleur yu joni ñoo ko dal ba léegi ni moo waral seen TV dem nee ko parce que nee na am na ñoo xam ne fayagu leen ma wax la xaaral ma wax la message joni joni lu tax porté wuñ pelent xam nga ma wax la dara affaire joni joni nekkul affaire bii yaa ngi dégg wax rek ah, àq la li ah, ñuy waxtaanee nii ak affaire jooni jooni du benn. Hmm. tey jii xoola bugaan mi ngi dox. nit ñi ñu ngi koy gis. ak bët ak bët. Hmm. su fekkante ne dalaa yore lu tax porté woo plainte. musu nga gis ñu toog ñu ne bugaan waa jooni jooni porté nañ plainte bugaan gis nga ko. waxal hmm. su la neexoon tey dalaa yore xaalis est-ce que amoo droit porté plainte mais ñenn ñi dañuy dégg tell ni damm na ba pare am na lu am na yu bëri yu ñuy wax ci bugaan. politicien la ay moroomu politicien am ñooy créer ay affaire di ko si dugal mais yooyu amut dama lay wax lu leer. na hmm. kenn génn ne jooni jooni maa ngi nii sama xaalis temps la dem porter plainte Bougane man de bu doon man la sama xaalis ne ci ma porter la plainte mais pour wax la affaire télé beeg nangam nangam niikiti naa yaa ngi dégg tele bii du tele buy tëj mais dama ne la. li tëj li tëj ah. Ousmane Sonko tëj na télé laa wax. d' accord loolu laa lay wax parce que Bougane Bougane amul ak Bougane amul ak gars yi problème de xam nga kan la amal problème dafa dénoncé bëgg-bëgg askan bi loolu moo tax tey ay affaire am di gàllankooru Bougane si propre moyen boppam lay fay employé mais dañoo dem tëj kontam yëpp kan moo tax ñu tëj compte Bougane yi Sénégal Sénégal la ko jaral kontam yëpp lañ tëj Bougane amul compte bu ubbi compte bi ñuy fay télé bi dañoo jël fekk compte bu tëj ba ñu dugal ci xaalis bi télé bi laa wax de li ñu liggéey ci xaalis dañ ko dugal ci compte bi ñu tëj ndax Bougane du jàmbaar boobu ba léegi ci moyen boppam la leen fay billaahi wallaahi hmm. xam nga lan moo tax tey tey jii télé bi moo wax la dëgg tey lu tax tey télé bi nekk ci yu kenn xamul solde yi mënut a yokk munu koo yokk parce que moyen boppam lay fayee li mu dugg ci politique di wax dëgg. moo tax ñu dem ni ral compte bi. te too ngeen fii yéen gis ñu dem tëj télé bi. Mm-hmm. yaa ngi dégg tëjaat télé bi kon bugaan askan bi dañ ko war a jàppale xam nga lu ma la wax ma wax la carrément man ma wax la Sonko duma la nëbatu de Sonko moom wax dëgg yàlla dama ko dama ko ponk dama ko jàpp. moom laa doon xam nga bëgg naa ko daal. Mhm. te dama lay wax dëgg. mais tey dama lay wax ne la bugaan lu tax man ma ñeewantal ko jàpp ko mooy soxlay askan bi mu nekk buggaan tabax na école mu mun nañ la ko wan xam nga bugaan dimbale na ay nit. bugaan ñaata nit la faj fii ay ay feebar yu garaaw yéen da ngeen ko ah, daan gis xoola ngoone xamal lu tax compte tey xoola ma wax la dara ñi fay jóge yëpp su ma neexoon tey man dama dul wax nit lu ñaaw ma ne ñooñu ay traître lañ xamal lu tax ñenn ñi nekk traître lu tax nit ki booy ànd ak moom mu jóg di xeexal askan bi ci xeexal askan bi ñu tëj si ay affaire am waroon ngaa mën a dore toog mais ñoom dañu xool li non non xaaral xaaral xam nga jaañ waxay indi wax sànq ba léegi am na yoo xam ne bugguma ci woon dugg yaa ngi dégg mais dinaa la ci duggal tey bu ñu nekkoon fii Feeling Dakar ngóone ñu dem ba baam ba ñu tëj ay kontam ñun ñu taxaweer wu dee xam nga di koy lijjanti jox la nga gis ni kii mi ngi lay fay te mosu cee ameel kenn dërëm di génne ay moyens boppam di joxe ba pare di génne ay mooy boppam di defal réew mi est-ce que amoo droit yow nga nekk gor. est-ce que loolu solution waxal seen TV. non dama lay wax xaar xaar xam ba léegi. waaw sàng ba léegi. dañuy exemple bi joxe nii bokkul ak. waaw xaar dañ doon wëri wëri seen TV amul problème bu bi du xaalis de. xaar waa kii. tey ñu ngi doon wëri wëri am loo xam ne bugguma la ko woon wax. ñëwal loolu laa bëgg ma léegi nag wax naa la ne la. waaw bugaan bépp compte bu mu am tëj nañ ko compte bu muy génnee xaalis amu ko tëj nañ kont télé bi. waaw d'accord yaa ngi dégg. waaw ma wax la benn affaire kon kon tey dama lay wax ni kii kull ko xam ne da ngaa kolaas bu gaan mbaa nga cokkaas ko pour jóge fa pour man yow doo gor. parce que bi affaire bi ni neex ngay gis muy dox tëjuñu compte yi dafa noppi léegi lan moo tax ñu tëj compte bugaan yi c'est-à-dire bugaan dafa ñëw dénoncer ni askan bi lii lañ soxla askan bi lii ak laa ak lay bi ñu tëjee Ousmane ko tamit mu génne continuer mission bi. ba pare bàyyee leen boppam mais ngoone ana gore mais mais mais di war ànduma yow de c'est pas que tëj nañ ay compte euh, te euh, Bougane nga ni sabaa des euh, ni nit ñi démissionné nañ rek ñoom duñ ay gor c'est pas ça non waxuma la xoola oh, oh, oh, xoola kii mi ngi jaawale ay wax dégg naa fi nga wax eh, eh, eh, déglu ma ngoone la laa wax dama ne mënoon naa wax ni waa dégg naa xaara xaara xaara waxuma ne duñ gor rek dama ne est-ce que man su ma la waxoon ne la ñi nga xam ne nii dañ faa jóge duñ ay gor est-ce di nga ko d'accord Mm. nga ne ma ndax lan ma ne la Bougane de nga ne waaw ma ne la ay compte am yëpp lañ tëj tëj compte télé bi daaw liñ ko doon jox ci ci ci xaalis li nga xam ne tele bi moo ko liggéey dañoo dem fekk conte tele bi nga xam ne compte télé bi tëj boo si lañ roob xaalis bi mm-hmm. Bougane nag li tëj Ousmane Sonko mooy tëj télé bi te moo tëj ñaar téeméeri moroomam Bougane nag nit kese la yaa ngi dégg parce que tey li muy wax amoo fitu génn wax ko man mii keneen ak keneen yaa ngi dégg su ko neexoon yor na xaalisam mu dem tëdd këram ni lanjang ni xol bu dog di ko lekk comme ñeneen ñi téye lii d'accord mhm. d'accord lii ak askan bi moo tax ñu tëj kontam d'accord sànq lim nga fi tele télé boobu dañoo saño def ni bugaan d'accord de toute façon rek génn di wax ay dëgg de toute façon dëgg yee tax ñu tëj lépp suñ conti beneen émission bu ñëwaatee xam nga nooy def nañ dugg si affaire ma jàppal la benn benn mu jeex d'accord ma wax la lépp léegi d'accord xoola kullu ku fa jóge yaa ngi dégg munoon nga faa toog non dama la wax wax laa la wax am na yoo xam ne duma ci yegg. Ah, yaa ngi de mënuloo ànd ak nit. mais jaar ci. non dama lay wax rek xoola. mais mais ma ko xoola ngoone. démission yi bëri na. non ngoone léegi déglul dama lay wax. Ah, léegi dama xam nga léegi léegi junj naa la loo xam ne moom laaju la ko woon. tey ngoone boo àndoon ak man tey. xam nga tey yow xam nga bu baax ñiy tëj nit ñeeg di tëj seen affaire yaa ngi dégg tëjuñu ko mais lépp lu mu am dañoo tëj kont yi munu ci génne dërëm. léegi boo nekkee ci télé bi ndax kooku mun na la yokkal wala munu ko li ngeen waxante woon la lay fay am na wala amul boo gisee lu ëpp loolu est-ce que doo dem. mais est-ce noonu la demee foofu munul neex. pour wax la dëgg foofu munul neex mais gars yi ñu ngi liggéey xoola ma wax la dara ah. buggaan askan bee tax ñu tëj kontam yépp pour muy leer d'accord d'accord foofu mënatu la